xam nga tey sax dafa jot ñu xaw a leeral tuuti euh, Babacar mais témoin la Bégué mais di doomu Gàmbi témoin la man lu tax ma jàpp waale téye dafa am lu ma booleeg moom si cadre ndëg daawur sax dañ koy génn parce que ndëg daawur maamam la ma yor tuuru ndëg daaw di tuuru ndëg daawur jinne moo ma booleeg moom te jinne ji ma booleeg moom Gàmbi gii la toog moo booleeg moom te bi ma booleeg moom ñi ma ko war a wax wax naa leen ko xam nga du nekk dañuy dékk micro rek ñuy wax mais dafa am ay seede ñu wax ma ci moom lu bëree bëri nag ah te boobu jaar naa si Cheikh Semar wax naa ko ne ko nekk war naa gisante jëmm ji toog waxtaan ak moom am lu ma wax yàlla xam na loolu wax naa ko tamit njóogu mais xëy des fois man du am jot ñoom duñu am jot te Cheikh bi muy dugg si Gambie vocal na ma waxtaan nag man ma ne ko incha allah waaye nag suñ toogee li ñu war a sikk man ak moom ma war ko ko wax dinaa ko wax parce que dafa am lu ñu man ak am fu mu war a teg man ma am si part de responsabilité ñu wax ma ko te ñooñu biñ ma koy wax nit lañ dugg nit ki feebar nit ki ñëw ci man ma jàpp ko di wax ak nit ki di wax ak nit ba nit ki wax ma ne ma diw ñoo ko ñoo ko ngemb ñoo ko aar ah. fu mu dem ñu ngi fa fu mu nekk ñu ngi fa mais moom xamuñu jëmm ji ay jinne si boppam ñoo taxaw ne ma ñoom ñoo ko ngemb ñoo ko aar ku koy da ngay sonal sa bopp ku koy sonal da ngay sonal sa bopp neen ñu ko sàngam ak sàngam ak sàngam. yow sàngam sàngam boobu doon ci may benn sàngam. déedéet xam nga loo xam ne vie la xam nga def naa émission yi ne leen waale gisagul dara. yan bi fii lay gën a Medina TV laa ko leen yan bi day gën a coow li day gën a bëri wax day gën a bëri lu ma ko wax nag mooy la nga xam ne moom ma jàppoon biir gàmbi gi di ko fajee biir dafa doon lu réalité rek bi Adama Barrow am deuxième mandat jour boobu ñëpp a ngi taxaw dafa ma ni Adama Barrow day folwaat Gambie bi ma koy faj ñëpp a ngi taxaw wax ma lu bëree bëri lu war a xew biir Gambie te ba ma ko waxee tamit li bëri bëri xew na biir Gambie ba ay rajo Gambie di ma invité may am ne vie privée jàmm nag nekk da koy fësal si média bi loolu jëmm nit ki nag su toogee nga toog di ko wax li nga ko a wax. tey li ma koy wax maanaam mooy numéro un dafa am numéro deux am numéro trois am nit ku nekk da ngay nangoo gëm ku la raw kenn mënu ko effacer ba deux raw ko te nit koo xam ne yéene na la bëgg na la wax dëgg yàlla ak yonent bi war nañ mën a bokk ñoom ñaar ndey ak baay man de su ma doon wax moom si dama ko naan carrément xëy na man ak moom yorante nañ numéro wax dëgg yàlla ak yonent bi day vi samay set damay vi setam na xam fi muy teg tànkam waali tamit xam fi muy teg tànkam waali sax xam naa ne mag la boo xam ne nit du ko jéem dugal si yenn yi Sidi tamit japp na ni tamit nit du ko dugal ci jëm yene ya mais nak ñom ñaar nañ bokku nday bokku bay suñ ko defé parce que ñom ñaar ñoo mëna a xaaliss lamb ji ni mbeur ñi di mayantee xaaliss ñom ñaar non lañ wara mëna mën xaaliss war non lañ wara mëna mën tay Sidi Diop war na mëna am programme Gambi war walé war am programme Gambi ñom ñaar ñu waxtaan ba juboo kenn baye morom teug nak wërsëg la ku nekk li wara lek a ngay lek waye nak waali nak dafa am lu and ak mom doomu la waxuma siri Diop du doomu Dakar de waaye Waly doomu Dakar la dafa bokk si fukki peñ ak ñaar dem leen sama émission ngeen xol li ma la Waly dafa bokk si fukki peñ ak ñaar nit mënu ko cee génne te nag Dakar ku ne Dakar ne nag daawur ku ne Dakar ne euh, mam Jare ku ne Dakar ne ku mam Lamba Ndoy ñoo ñëpp dañoo sanc Dakar téye Dakar ku ne Dakar ne maam Yumbur yaa tax wakam kon dafa am loo xam ne tey Waly su si bokkee tamit dafa war a mën a woote jàmm la Sidi Diop war a mën a woote ñi encadré Sidi Diop wooteel ko jàmm ndax jàmm si la lépp xaj